alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin wa iman ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ko baal di ñaan yàlla mu baal ñu xaq lu ñu lu ñu yëgul lu ñu xam ak lu ñu xamul lu ñu tey ak lu ñu teyul su ko defee mbokk yi ni ñu ko baaxoo defee seen émission bi di émission daayira yi tey muy sunu ñaareelu numéro ñu ñëw fii ci ah, daayira bi nga xam ne mooy fondation kër fondation Serigne Amsatou Mbacké Souhaïbou di ay ndaw yoo xam ne wala ay kay jëwriñ yoo xam ne seen bëgg-bëgg yëpp mooy ngërëmal Serigne Touba di ko jaaree nag ci sëtam muy Serigne Amsatou Cheikh Moussa Sonia bu nag di koo xam ne koo xam xam ko ci xasiida yi koo xam xam ko ci bëgg maam di tedd muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax Serigne Touba moom dañ koy liggéeyal waaye nekkul na da nga koy liggéeyal jël liggéey bi teg ko ci loxoom waaye da nga koy jaar la ci nit mu tegal la ko ci loxoom ñoom nag ci Serigne Amsa lañ ko ci loxol Serigne Amsa lañ koy teg mu tegal la ko ci loxol Serigne Touba ñu ñaan nag Serigne Touba nangul leen liggéey boobu noonu te ñu ñëw waxtaan ci ak ñoom ngir waxtaan ñoom ci ay point lépp nag tënku ci seen fondation am seen daara bi lépp tënku ci ci ci ci point yi. jëwriñ ji ma toogal sama wet mooy sëriñ ah, sëriñ musa sëriñ Moussa Diallo moom laa war a siqal waxtaan wi maanaam laa war a siqal jotaay bi mu leeral ay mbir lépp nag tënkut ak li ma waxoon léegi ci ci fondation bi su ko defee dañ koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi incha allah si Moussa bisimilah. bisimilah sami ali mina seytaan rajim eh, bisimilahi rahmaani rahim eh, mbokki julli rawat na mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare kon bu baax a di nuyu wala di jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké ko ñaanal suñu boom yàggal ko fi lool waaye tamit di nuyu ak ñaanal ak ziyaare sëñ Hamzatou Mbacké mi nga xam ne moom moo war a liggéey bi ñu ko ñaan suñu boom yàggal ko fi lool ñu ngi yëkkat tamit am nuyoo tamit di ko teg ci ki nga xam ne mooy loxol seen Ousmane Touré mi nga xam ne mooy jëwriñu fondation bi di jaar ci moom seen nuyoo di nuyu kon waa daa ji yëpp ak di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan wala ñi nga xam ñoom ñoo ñuy déglu Euh, mbokk mi di wax ak yenn moom la ñuy wax Moussa Diallo muy ndongo loo xam ne moom moo jiite finance bu waa fondation Soppe Sëñ Hamsatou Mbacké am yéene fas yéene liggéey seen bi ci mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo fondation Soppe Sëñ Hamsatou Mbacké. Mhm. jërëjëf Serigne Moussa nuyoo bi am na solo te matale na itam su ko defee du ñu def loolu rek soobu ci ci ci waxtaan wi muy ay ay questions yoo xam ne dafay tënku ci fondation bi du ko génn. suñ Moussa su fi ñu tàmbale ak yow mooy ndax mën nañoo xam fondation bi kañ ngeen ko sos ak idée bi maanaam xalaat xalaat xalaat bi fan la jógee ndax nekkul na da ngeen toog rek wala nit nit jékki-jékki ñëw def waaye dafa am xalaat bi jógee ndax mën nga ñoo tënkal ci kañ ngeen ko sos waaye itam fan la idée bi jógee fan la xalaat xalaatu sos fondation bi jóge waaw loolu de xam naa luy neex a tënk doon ndaxte mbokki taalibe yi mën nañoo xam ne dañoo nekku ay. murid yoo xam ne ñi ci ëpp dañ doon daje ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee réseaux sociaux ban fa doon daje nag ñi ci ëpp soppoon jëmm jooju ñuy wax jëmm jëmm sëñ Amsatu Mbàkke ci anam goo xam ne anam wu jégg dayoo la ku ñuy wax sëñ Ousmane ak Soxna Jaara ñoom ñaar ñooñee man nañu wax ne idée bi ci ñoom la jógee ndax ñooy ñi nga xam ne buñ doon wax ne euh, jëmmi fondation bi am na coslaay wala cosaan mën na wax ne ñoom ci seen jëmm yooyu la jógee ñoom ñooñu ñoo xalaatoon ne eh, gis nañ fi euh, euh, soppay sëñ Saliou gis nañ fi soppay sëñ Fallou gis nañ fi soppay eh, sëñ Abdou Lahad maanaam soppay ku nekk gis nañ ko fi waaye jamono jii gis nañ ne sëñ Amsatou Mbacké day ki nga xam ne moom mooy jëwriñu axlu xasida waaye tamit di jëwriñu liggéey bi nga xam ne mu liggéey borom Tuubaa ñoom ñu gis ne ñoom ñëpp de sopp nañ sëñ Amsatou Mbacké waaye ba tey amul ci benn fondation bu ñuy dégg boo xam ne ñu ngi koy jëmale ci jëmm ji tedd jooju waraloon ñoom ñu nañ jéem a wut kon benn jataay wala benn jàmm xam boo xam ne dañ koy féetalee ki nga xam ne moom mooy jëmm ci tëdd muy seen Hamsatu Mbàkke ci la ko soxna jaare tijjee groupe boobu ñu tuddee fondation soppe seen Hamsatu ànd ko seen Ousmane noonee lañ ciy doxe noonee lañ ciy doxe loolu yaakaar naa jamono yi ci weeru février la ba ñun ñi ñu tàbbi ci ci weeru ñuy wax weeru avril ci noonee la lañ ànd ak ñoom ci liggéey boobu di ko doxalee ak ñoom di tàmbali di soñ di soñ mbokki taalibe bi di ko yaatal ci ay statut di ko yaatal ci Facebook bi di ko yaatal maam ci yeneen anam yu bokkut ak yu ni mel ba mbooloo mi dem ba toll ci jamono ji ni wax ak yow maanaam téeméer nit ak juróom-ñeent fukki nit ak e, ñaar ci jamono ji ni wax ak yow kon mën nañu wax na ci ñaari jëmm yooyu daal la sëriñ bi jaar la ci ñoom ba fondation bii daal di daal di sosu. Hmm. macha allah bu ko defee kon mbokk yi déglu bàyyi xel leer lool lool leer na maanaam. fondation bi mi ngi sosoo ci ñaar ñooñu muy Soxna Jaara ak Sëñ Ousmane ñu ko leerle macha allah bu ko defee itam sunu ñaareelu question bi mooy Sëñ Moussa fondation bi nan lay doxee maanaam yan sart moo tënk ki ci bokk maanaam ki nga xam ne léegi nekk na membre ci biir fondation bi ginnaaw ba mu ci bokkee ba noppi léegi yan sart moo ko tënk waaw. Mm, kon ci loolu xam naa ne la war a sax sart yi mooy mm, fondation bi dafam aw doxinu boppam. mooy képp koo xam ne dangaa bëgg a tàbbi ci li nga xam ne mooy liggéey seen xamsatu bi dafa am noo xam ne noonee la mbooloo mi tënko mooy la cee jiitu mooy da am carte membre waaye carte membre boobu itam ñoom niñ koy weccee mi ngi toll ci ñaar téeméer ñaar téeméer tamit niñ koy séddale mooy maanaam euh, ñaari fere lañ koy def benn téeméer mooy dem ci li nga xam ne moom mooy carte membre bi benn téeméer mooy dem ci li nga xam ne moom mooy social ngir ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir daara ji di am ay jafe-jafe moom moo xam jafe-jafe kër lay doon wala ñuy euh, fas soxna wala ñu am borom kër yu ni mel ñoom ci xeetu téeméer boobu la ñuy génn di ko jëmal ci ñi nga xam ne moom mooy mbokki taalibe yooyu ak yeneen ñi nga xam ne dañ koy faral di dajale léegi nag 1000 francs yooyu ñoom bu ñu ko joxee dañuy envoyé ñoom seen benn nataal seen nataal bi ñoom ñoo ñoo koy defal li nga xam ne mooy carte membre ginnaaw loolu bu amee dañ koy jël membre boobu boole ko waa communication communication leeral ko ni nga xam ne noonu lay la di joxe muy sart yi te sart yooyu nag bokk na ci nag ñun nag li nga xam ne moo gën a nekk ñun suñu yitte mooy képp koo xam ne bokk nga ci daara ji ginnaaw ba nga amee carte membre bokk na ci ci ñun ni ñuy doxee mooy weer wu dee dem ñaar téeméer moo ñaar téeméer boo xam ne maanaam wuy tegu sa ndodd la maam farata lay nekk ci yow ñaar ñaar téeméer yooyu nag benn téeméer bi mooy dem fi nga xam ne moom mooy ziar bi nga xam ne moom la ñuy waajal at mu jot ndax sëriñ bi dañoo joxoon ñaari ndigal ba ca jiitu mooy addiyey université mooy addiyey axlu xasida beneen bi jëm ci bisu xasidaam bi ñun nag ñu gis ne maanaam ñaar yooyu farata la ci ñun moo waral ñaar téeméer yooyu ñu yëkkati ko di ko teg ci ndoddul képp koo xam ne bokk nga ci fondation bi téeméer benn téeméer di dem ci li nga xam ne mooy ziar bi benn téeméer di dem ci li nga xam ne moom mooy addiyee yi ak lu waa xasida kon nag képp kuy tënku ci biir fédération bi rek wala ci biir fondation bi maam loole moom maam farata ci yow waaye duñu yem foofu képp koo xam ne ngaa bokk ci biir fondation bi itam ginnaaw ba nga nekkee membre am connexion nga nekk en ligne lépp lu ñuy waxtaane ci biir daal ji day nekk yow farata ci yow ngay dugg ci groupe bi di nemmeeku mbokk taalibe yi maam di di di laajte liggéey bi fan toll wala yu ni mel loolee tam bokk na tamit maam ci seen yu doxin ak ak yu ni mel ba tey tamit bokk na tamit ci sàtt yi nga xam ne ñun moom la ñuy doxee muy suñuy rawatina activités yi saa bu mbooloo wootee waa ñu war a am fu ñu daje moom moo xam mm, rencontre la doon wala lu mu ci mën doon farata lay doon ci mbokki taalibe yëpp ñu teew kon ci li nga xam ne moom mooy moom mooy jataay boobu waaye nag bu fekkee li nga xam ne nag moom gën a nekk nag yitte mbooloo mi am na ci benn group bu ñu ñuy tuddee groupe whatsapp soppe seen Amsatou Mbacke waaye groupe boobu itam képp koo xam ne yow nekk nga ca da ci am ni ñu cey doxe nañ cey doxe na mooy bokk na ci ay sàtt yoo xam ne mooy sàttu groupe bi loolu na ñoo koy leeral mm. ngir yenn xeetu yi nga xam ne ay statut yoo xaw a ñàkk fayda la yooyu dañ koy mooy maam ci li nga xam ne mooy groupe bu ni mel mm. yooyu yëpp na buñ ko dajalee boole ko waa communication ñoom ñoo koy saytu jëm laa tënk ba nga xam ne ñoom seen liggéey leen donc moo ko tax jóg muy liggéey seen Ramsatu Mbàkke maam lépp lu ñu fa dugal rek day méngoog ak li nga xam ne moom mooy moom moom mooy daara ji kon nag daara ji euh, mën nañu wax ne euh, ban soso yàggut waaye ñoom da te ñuy doxe ci seen i saat dañ ko méngale ak mbooloo mi ñoom niñ tolloogul lu ñuy gën di dem nag mbooloom di gën di xalaat ci mbooloo mi ñi ci ci ci sàttu yi ñuy gën di évoluer maam ci li nga xam ne moom mooy sàttu yooyu kon mën nañu wax ne sàttu yi nga xam ne moom la mbokki taal bi tënk rek la ci jiit daa carte membre la waaye ginnaaw boo amee carte membre leen lay gën a a jóg te li a jóg nekkul leen lu du liggéey seen Hamzatou Mbacké nga xam ne moom la ñu jox bi ak liggéey bi nga yaakaar naa ne seenu doxin bokk na ci yooyu nga xam ne moom laa jot a tënk macha allah macha allah sëñ Moussa bu ko defee mbooloom yi di teewlu itam loolu leer na xam ngeen léegi fondation bi nan lay doxee ak yan sart moo tënk ki si bokk koo xamul woon yaakaar naa léegi leer na sa bopp. su ko itam sëñ Moussa tey gis nañu maanaam euh, jamono bii ñu tol daanaka boo sosee kuréel boo xam ne dafay dox ci lu baax daanaka da ngay gis ne dana ay xeet ay mbooloo yu taxaw fay opposé wu ndax yoo xam ne dañuy taxaw di wax ay xeeti wax yoo xam ne mooy lool loolu nag moom mënul ñàkk ci mbooloo moo xam ne dafa dafa dafa mën a dafa dafa nar a jug dafa jug rawatina di liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu nag rawatina ci gox bi ñu nekk muy Sénégal ndax jafe-jafe yooyu jàngonte ngeen jàngonte ngeen ko ci bi nga xamee ne am sos ngeen mbooloo mi comme ni ko xeetu mbooloo yu bari di ja di di ko di ko gisee. waaw euh, sëñ Fallou yooyu moom xam naa yuy faral di am la waaye mel na ne am na ci yoo xam day dal mbooloo mi waaye du nekk yoo xam dañ koy faral di ko leeral mbooloo mi. ndax am na ci yenn mbooloo yoo xam ne jafe-jafe bu amee ngeen yéen jëwriñ ngeen daje jéem koo réglé ca na mu gën a gaawee day gën maam nga tasaare ko ci mbooloo ndax boo ko tasaare ci mbooloo ñeneen mën nañ koo xoole beneen gisin waaye jamono jii ñuy wax ak yow mooy bokk na ca ci jafe-jafe yi nga xam ne day fa di dal ci yenn mbooloo yi te ñun nag yegg seeguñ ci ñun waaye ñun nag teel nañ ko bàyyi xel mooy da ci am ñoo xam ne dañuy fa di def bu fekkee dafa am mbooloo muy soog a jóg wut seen logo fas yéene dox moo xam ci fondation soppe seen Hamzat lay doon wala fondation soppe seen ñoom dañuy dem tijjaa beneen groupe wala beneen Facebook boo xam ne fictif lay doon ñoom tudde ko fondation soppe seen boo ko defee ñu fay laaj ay koppar di fa dox doxin woo xam dañuy jàpp ne waa fondation bi ñoo ko woote fekk fondation bi doxut nekk fekk nekkut fondation soppe seen Hamzat Mbàkke ah, maanaam daal dalagu leen waaw dalaguñ na waaye ñun te lañ ko bàyyi xel ndax niñ ko bàyyi xel mooy ñi ngi doon jéem ñi ngi doon dox ci di euh, gën a yëngu ci wàllum fexe ba am ay kayit yoo xam ne kayit yu leer lay doon ba nga xam ne képp koo xam ne yow yaa ngi waaj ngir yu mel noonu fësee na ko indi ci fondation day fekk ñun teel nañ koo fàggu waaye jafe-jafe yooyu moom mën nañu wax ne moom moom excès eh, gu ci mbooloo mi waaye yooyu yëpp na comme que sëriñ bi dogal na ñu koy dégg kon ci yeneen jataay yi ñun teel nañ ko waajal kon bu baax a baax baax a baax ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi macha allah bu ko defee kon nit ba tey yéen ñiy teewlu loolu leer na euh, daanaka dalagu leen leeral lan la leen itam am na nuñ ñu koy waajalee nañ nañ ciy kiiwee soo ko defee ba tey ah, sëñ fondation bi lan la réalisé gun wala lan la am yéene réalisé ko maanaam yan projet moo nekk ci kanamam ah, ndax mbooloo moo gis daanaka am na ay ay ay projets yu ñuy xel ah, ñu ba mën xam ndax lan la réalisé gun wala bu fekkee tamit kéewul dara yan projet moo nekk ci kanam ndax mën nga ñu koo leer mën nga ñu koo hmm. waaw fondation bi nag mën nañu wax ne bu fekkee ci wàllum réalisation moom moom mën nañoo wax ne fondation bi am na ay mbébét waaye nag mën nañu wax ne loo xam ne dañ ciy teg maanaam baaraam ñu ne lii lay réalisé xanaa bu nekkut fekk ba fexe ba dajale ay mbokki taalibe yoo xam ne mës ñoo xamante maam ci wàllum fànn boobu mën nañu wax ne xanaa loolu la réalisé waaye fekkee loo xam ne lu ñuy teg maanaam baaraam la mën nañu wax ne réalisation boobu amut waaye teewut mbokki taalibe yi am nañ ay mbébét mooy ay projet yoo xam ne gis nañ ne lii bu ñu ko defee mën nañu jural ñu mën a am ay réalisation yoo xam ne képp ku ko gis na xam ne lii fondation Soppe Serigne Hamsatou Mbacké ñoom ñoo ko def loolu nag bokk na ci mooy waa social am na ci ay euh, xeetu njaay yoo xam ne ñoom ñu ngi koy waajal lu jëm ci wàllum café wala wala yu ni mel yooyu nag dañuy jot ne buñ demee ba nga xam ne maanaam am nañ ci li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg ñun suñu yitte seen Hamzatou mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal suñu bébé ci moom daay yaatu lool ndax euh, loolu ñu tudde ay këru xasida ak yu mu ci mënti jàpp na ne moom moo ko gën a yeyoo ndax moom mooy ki nga xam ne moom mooy jëwriñu ma waa axlu xasida kon nag fépp fu waay am kër yaakaar naa ne moom këru xasida yaakaar naa seen xamsatu moom moo ci gën a yey loolu nag am na yooyu bokk na ci yi nga xam ne mooy xalaatu mbooloo waaye nag loole mën a mën a goo mën a goo cee jublu ndax li ëpp maanaam dëgg maanaam liggéey bi fan war a àgg dañuy soog a door wax dëgg yàlla moo tax réalisation yooyu moom amagut waaye projet yooyu bokk na ci projet yi nga xam ne mooy projet mbooloo mi waaye itam gën a waajal tamit bu baax a baax mbooloo mi waajal ko tamit ci li nga xam ne moom mooy fànn maanaam dëgg-dëgg xasida mu jëm ci wàllum kuréel ak xeetu matériel yu muy ànd ak yu ni mel ndaxte fii lépp lu fi dox te amul kuréel wala amut yu ni mel daanaka la muy réaliser daanaka du tax mu am solo ni mu war a amee solo dëgg-dëgg. moo tax yooyu yëpp mbooloo mi ñu ngi koy xalaat nag ci bépp fànn. waaye nag mën nañu wax ne bu fekkee wàllum réalisation moom fondation bi ñoom ci wàllum réalisation yooyu man maanaam loo xam ne dañ ciy teg baaraam moom loolu moom amagut waaye ñoom seen daal nekk na ca te ñu ngi dox nag jëm ci waaw lu ñuy gën di dem daal ñu ngi gën di ci dox daal waaw macha allah bu ko defee si Moussa loolu tamit leer na ah, si Moussa bi ñu ñëwee gis na ah, mbokki soxna yi gis nañ niñ niñ niñ niñ soloo ak maanaam niñ niñ yiwee loolu maanaam sart la boo xam ne da ngeen ko tënk ci mbooloo mi nga xam ne ku ci ku ci bokk da doon koo xam ne maanaam sa soli nag yooyu day yiw wala maanaam wala ñoom ñoo ko indaal ci ci kii bi daal waaw moom dañuy wax ne moom eh, nit ki moom ka nga bu fekkee day dëgg ci yow moom la digle moom ca loolee ngay jéem a tënku mbooloo mi sëriñ bi daa dogal laataa sax ñuy xamante ñoom dañoo soppoon sëriñ bi ngi jëmmi ngi jëm borom Tuubaa ci sopp googu ñu ko soppani tamit raxuñu ca dara moo war a ñoom ci seen i melokaan dañ koy indaale fii ci daara ji donte nag ñëpp nag mën ñëw bokk yam waaye nag du tey nag mbokki taalibe yi ñoom seen yitte bokk na ci soññee yi nga xam ne dañ koy soññee mu nekk soññee yi am soo ci daara ji ak melokaanu soxna ak soxna xeetu yi nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg comportement ak xeetu col yi nga xam ne moom moom la ko lislaam gaaral yooyu dañ ci faral di soññee moom ma war a maam ñenn ci ñoom ñu jàpp maam lii moom farata la ci ñoom nekkutu sax luñ leen ñu soññ moo waral ñu mel nii ñu mel nii ñu mel moom buñ ko melee ñoom mooy seen melukaan buñ ko melu tamit moo nekk seen melukaan ndaxte ñoom kañ sopp di jéem di ko liggéeyal kookee moom day dox ci diine day dox tamit ci islaam te sëriñ bi donc moo ko tax a jóg te képp kuy ànd ak moom yaakaar naa da ngaa war a tënku ci moom li mu tënku te moom mooy tënku ci diine te diine moom moo leen njëkk sant sant loolu moo waral moom ñii nii ñu mel itam nekkul nekkul loo xam ne waa fondation bi fi nekk naan dañ leen dañ leen di nangam ak nangam ak nangam donte nag am na waxtaan yoo xam ne mu ngi leen di soññ waaye dañuy wax ne ñoom kan sopp moom lañ gis ne maanaam kii yoon wi mu jaar wii yoon dong nii ñu mel dong mooy mën a tax ñu jot ci loola ñuy sàkku ci moom moo waral ñu mel nii ñu mel kon dañuy wax ne ñoom luñ fi indaal la ak loo xam ne jëwriñ yi euh, soññee yu jëwriñ yi euh, moo leen moo leen ci gën a poussé nag ngir ñu mel maanaam melokaan yenn xeetu melokaan yi nga xam ne moom lañ mel macha allah kon dañoo jëfee loolu yonent bi naan almaru maa man habba maanaam nit ku ne daanaka kam sopp na mel rek noon lay mel macha allah bu ko defee yàlla saxal leen ci ndax jigéen moom daanaka même bu melul ni tamit nii la war nii a ko defee suñ Moussa ndax mën nañoo xam fondation ndax day dox ci wàllum social nga xam ne léeg-léeg léeg-léeg nit xewle ngeen mobiliser wu dem seeti ko seen doole ndax loolu gis nañ ko ci yenn yenn xeeti kuréel kuréel yoo xam ñu koy def ndax yéen da ngeen di da ngeen di da ngeen di dox ci loolu waaw loolu sax moom bu du fondation sax day farata rawat na fondation boo xam ne moom fondation moom du lenn lu muy jël lu du ab jamaxa jamaxa moom du lenn lu du am mbooloo mu mbooloo moo xam ne am mbooloo moom buñ mbooloo maam dimbalante mënta ñàkk si ñoom fondation nag mën naa wax na ci wàllum social moom sax la ñuy gën di dox maam ci beneen fànn bu mu ci mënti doon ndax euh, bëy na fi mbokki taalibe yoo xam ne wala rawat na ci soxna ñoo xam ne bañ ba ñuy dem kër mbokki taalibe dañuy dajale ñoom seen koppar mu bëri ak mu néew moo xam seen i téeméer téeméer wala seen i ñaar téeméer ñaar téeméer wala seen 2000 2000 bu ñu ko dajalee mu bëri ak mu néew duñ ca wecceeku leen lu du nag ab dollu xasida lañ ci wecceeku waaye nag yenn saa yi ñu boole ko ak ay nataal ak yu ni mel waaye dollu ba moom mooy la cay gën a fës ñu tànn ñeen ci jëw jëwriñ ñu dem maam ba ca soxna soosa jébbal ko ko ngir xamal ay waajuram wala ay mbokki taalibeem ne daara ji nga xam ne moom ci la doon yëngu mi fondation bi ñoom ña ñoo ko jox lii lu ngir loolu ab soññe lay doon ci moom waaye nag dañuy dañoo jàpp sax ne loolu lu tuut la ndax dañoo jàpp ne képp ku bokk ci fondation bi yow boo fi jógee di dem kër lépp lu war ci yow daara ji ñoom ñoo ko war a def moo waral nag mbébétu waa daal ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy sociable ñoom wañu amuñu yéene yemale ko foofu donc waaye bëgg nañ ko yaatal ba képp ku bokk ci fondation bi moo xam ngay xew leeg moo xew-xew mu ci mënti doon ñu yëkkati lu duum lu am solo jëm la ko jébbal ngir ñoo xam ne maam sa yitte jooju ñoom seen yitte la kon nag daal ji mën nañu wax ne moom daanaka sax mën nañu wax ne social la fondation moom moom ak social ñoom daanaka ñoom dañoo méngoo benn lañ te kenn mën leen a xàjjale kon nag loolu moom mën nañ cee euh, tënk ne daal moom dañ ciy dox bu baax a baax kon fondation bi ak social maanaam benn la macha allah am na solo euh, ku bëgg a intégré wu ci fondation bi. naka lay wan yoon lay jaar ndax am na ñu ñuy bàyyi xel am na ñuy seetaan buñ gisee vidéo bi itam danañ am yéenay bokk ci maanaam ku ci bëgg a bokk wan yoon nga wan yoon ngay jaar ba bokku ci. waaw fondation moom bokk ci jafewut mën nañu wax ne yomb na lool ndax seen xam-xam moom moom moom moom mbiram yëpp moom daa daa yi ba war a fondation daanaka ngir ñu ngir bokk ci dañ ko maanaam mbir yëpp dañ ko fexe ba yaatal ko ndax tey dañu am ay xeetu numéro yoo xam ne dañ koo tàbbal ci euh, fi ci mel ne ñoom am nañ compte Facebook am nañ compte YouTube yi si mel ne ay TikTok ak yu ni yooyu yëpp am nañ ko yooyu nag la tax a jóg nekkut lenn lu dul fexe ba am ay numéro yoo xam ne dañ ko caa tàbbal ngir képp koo xam ne da ngaa gis numéro yooyu muy 77 135 20 30 wala 77 307 27 20 wala numéro ci Euh, demene numéro Soxna Diarra 117 047 96 01 yenn xeetu numéro yooyu bu ñoom bu ñu ko gisee ci fondation bi maanaam ñoom ci seen site numéro yooyu buñ ca jaaree rek ñoom ñooñu képp kuñ mën a jaar ci mbokki taalibe yooyu ñoom danañ leen leeral dëgg-dëgg liggéey bi ku ci mel ne seen Ousmane muy jëwriñ daayira ji moom numéro moom képp koo xam ne moom jot nga ko boo ko ci jaaralee moom dana fexe moom ba nga tàbbi ci daara ji boo moom nag da lay leeral liggéey bi ginnaaw bu ko leer da day fexe na ba euh, jotale la ak waa finance waa finance mooy ñun ñi wala ñoom soxna jaar ñoo nag ñoo lay jote ñoo ak ñoom seen Jibril Sam ñu gën laa leer liggéey boo ñu wax la maanaam fan ngay jaar kon nag ngir ñun ñu gën ko tasaare dañoo fexe daal ba am ay sites yoo xam ne nii maanaam képp koo xam ne dangaa bëgg a tàbbi leen yaa ngi noonu maanaam mooy numéro yi may wax léegi boo ca jaaree rek ñooñe boo leen jotee nan la leeral dëgg-dëgg liggéey bi ni muy doxee macha allah kon mbokk yi ñi bàyyi xel itam gis ngeen lim leeralee koo xam ne bëgg ngaa bokk ci fondation bi di fondation Amsatou nga war a jaar ba bokk ci kon yaakaar loolu leer na ci yéen Euh, bu ko defee sëñ Ousmane mm, temps bi ñu amoon yaakaar naa jeex na bu ko defee da ngay joxe say kàddu yi kàddu yi tàggatoo rek incha allah. kàddu yi tàggatoo yi moom xam naa day nekk rek di leen sant bu baax a baax ci euh, déplacement bi nga xam ne wala seen yëngu gi nga xam ne yëngu ngeen ko ñëw fii ci jataay bi nga fas yéene ànd ak mbooloo mi ci liggéey bi nga xam ne moom moo gën a mag ci seen i liggéey muy liggéey seen Hamzatou Mbacké xanaa ñi xamal mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñu ngi ñuy seetaan ngi ñuy déglu lii daal jàmmaxa la boo xam ne ñoom seen yitte mooy liggéey seen Hamzatou Mbacké ñu koy woowee nag fondation soppee seen Hamzatou Mbacké kon ne képp ko gis mooy ci site yi mu ci mën doon nga gis ñu def F def 2 defaat beneen S def maanaam benn as soog indi benn M loolu mooy fondation soppee seen Hamzatou Mbacké 2 ba nag ko xamul li muy tekki dan naam fondation soppee sëriñ soppee ba ak sëriñ ba ñaari S yooyu lañ boole def ko muy 2S kon nag képp ku ko gis nga xam ne lii mooy fondation bi nga xam ne wala mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo ngi liggéey seen Hamzatou Mbacké mm. xanaa di fàttaliwaat mbokki taalibe yëpp ne fondation soppe seen Hamzatou Mbacké nekkul ne Touba dong lañ féete mm. waaye nag ci dañ koo yaatal ba ci dëkk boo dem am nañ fa ñu leen fay représenté mm. zone yi bokk na ca Diourbel Louga Saint-Louis Fatick fi nga xam ne moom mooy Dakar ak fi nga xam ne moom mooy Touba Touba day siège bi mën nañu wax ne moom mooy barab bi nga xam ne moom la waa fondation bu ëpp li ñuy daje. fondation bi itam ñuy tamit am nañu ñoom seen xeetu yëngu yi ñuy def mooy weer jot ñaari weer yu jot ñoom dañuy faral daje ci benn zone. bu mu fa dajee jéem a saafante bi waaye jéem a leeralaat dëgg-dëgg ñoom seen liggéey bi ñoom dëgg-dëgg tolluwaay bi tolluwaay liggéey bi. ñuy fàttal tamit ne fondation bi nekku ne ay gone ñëw tëb rek daal di koy taxawal waaye dañ ciy am ndigal ndigal yi tamit ñu ngi ko jaare ci seen seex mi nga xam ne mooy jëriñ seen Amsatu Mbàkke ci moom lañ ko jaarale kon na fondation bi lépp lu ñuy def ak lépp lu ñuy jëf ci seen seex lañ koy jaarle ba nopp ba mu jox leen ci ndigal ñu soog dem ci seen xamsatu kon nag képp ku ko képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan wala képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu na nga xam ne liggéey moom liggéey borom Touba la képp ku ci jàpp moom moom mooy taw féex gi képp koo xam ne tamit jàppoo ci tamit ñu ngi lay ñaan ci barkeb seen xamsatu nga bokk ci ñi nga xam ne ngay tàbbi ci liggéeyam ndax liggéey bi day fas yéenee dem te kenn mënu koo téye tamit àgg fa kon nag ñoo ngi ci ñoo ngi ciy soñ suñu mbokk taalibe yëpp di soñ suñu bopp di soñ ñëpp ñu xam ne liggéey baa ngi nii ndigal laa ngi nii sëñ bi moo ci joxe ndigal moo war a mbokki taalibe bi yëpp nekk ci kon dañuy wàcce foofu kàddu yi rek di jégal na bu baax a baax ak a sant nag suñu jëwri ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox kàddu gi wala ñoo jox ndigal li bañ man di ko yëkkati ndaxte ñoom ñoo ñu ko gën a jekku buñ ci limee ñoom seen jibri rek ñoom seen daawda ak ñoom seen seexloo ñoom seen ousmane daanaka mën nañu yóbbaale mbooloo mi waaye amaana dañoo dañoo am kóolute ci ñun ba waral ñu ñuy jox kàddu ngir ñu fas yéene ko yëkkati waaye nag lépp lu ci jub rek ñu ngi koy sant seen jëmm yooyu waaye lu ci dëng ñoo xam ne jëmm ji nga xam ne moo doon yëkkati kàddu gi moom moo xeebu lool te lañ ko santoon amaana la ca ëpp daanaka nam ko war a leeralee ba mu leer ci mbokki taalibe yi moom ci jëmmam la ba nam war a leera leeru ko kon dañuy taxalu foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bu ko defee mbokk yi doon bàyyi xel émission bi di émission daayira yi tey ñu seet si woon émission bi euh, kuréel bi di fondation Cheikh Amsatou Souhaïbou ci a waxtaan Sëriñ Moussa Diallo ni ñu ko ñuy ay jëwriñ yoo xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa rek moo leen tax a jóg waaye tamit di ko jaaree ci buntam di sëtam muy sëriñ Amsatu Sohaybu bu ko def lu di ñaanal suñu borom gën leen a dëgëral gën leen a taxaw itam musal leen seetaane ba ngeen yeggale lépp loo xam ne mbébét mbébét ngeen ko bu ko defee itam ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuy ñëpp ñoo xam ne ñu ngi doon teewlu uh, émission bi. ñu ngi leen di def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.